الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ديرجي في سيرن توبا موكي جولدي راوتنا موكي طالبي نيغ لين نوي دي لين زيار دي جيتال سي زيار بي شيخ محمد المنتقى مباكي ابن الشيخ محمد البشير mi fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ci toftal Serigne Ahmadul Mokhtar Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha di wàcc ba ci jëwriñam yi ka ca bopp ba di Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Mbacke Madina mi nekk jëwriñam ca Daaru Xudóos ak Serigne Moustapha Mbacke Ibn de Sidi Mokhtar Mbacke ma ko nekkal ca Guy Mbind ci Serigne Abdourahman Mbake... mi fi nekkal sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Moustapha Mbacke Assouboury mi nga président fédération des groupements religieux et culturels de disciples de Cheikh Moudou Bamba suñu teewaay bala ñu cee sori ñuy gërëm bu baax ñi nga xam si ñoo ñu fekk fii ci dëkk bu tedd bi di Ndéndé Mbacke muy waa ak Actu ñu leen gërëm di leen ziar bu baax ci liggéey bu am sol bi ñuy def ci yoonu murit di ko def ci yoonu lislaam di ñaan sunu borom yokk leen a taxaw te lépp loo xam si ne taxaw nañ ca yàlla sunu borom def mu doon li gën te dëgëral seenu taxawaay ci liggéey bi fii ngeen ñu fekk nag mooy dem Mbàkke bari bi ñu toog bu ngeen ko gisee mooy jàkk ji nga xam ne ki nga xam si ne mooy taawub Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Moustapha njëkk ko fee nekkal moom moo moom moo moo nekk moo moo sañcoon fii ci dëkk bi di Naydé ci 1922 xamne bimu ne bi mu koy sanc boobu Serigne Touba ngi fi jakka ji na ngeen gis xeyna du won jakka sax ab bërëbu julkaay rek la won nga xamne Cheikh Mamadou Moustapha bu ma saan jugge tindo di jaar fi fi ni la daan julle julle julle juromi bu dem bu ci bi penc ci bi mi di fi gis juma ji nga xam ne mom la ko sëtam bu bax bi taxawal ni sëñ Moustapha Mbacke astubri mi nga xamne ne

muy liggéey bu am solo boo xam ne yaakaar naa Cheikh Moustapha fa mu nekk xolam sedd na ci bu baax ndax dëkk bi ba mu koy sanc de mett ci cent vingt 1922 metti woon na lool mu nekk fii liggéey sëñ Touba taaw bu baax ba sëñ Cheikh Mbacke genn fan ma nekkoon fi nga xam ne mën nañu wax daanaka fii la muritoo te yenn ci ab njabootam tamit fii lañ gënee àdduna ku ci mel ni sëñ Mbacke Sonalou ci 1934. néeg bi mu gane noo àddina mi ngi fii ci biir kër gi ak ak euh, sëñ Mouhamadul Bachir ñu goon xam ci sëñ Bas Buur ak soxna Maam Faati Mbàkke muy soxna Maam Faati Nayde ñoom ñëpp fii lañ gane àdduna muy bërëb boo xam si ne bërëb bu mata la te bërëb la boo xam si ne dafa am solo lool ci ci taarixu murit am solo lool ci taarixu Daaru Xudoos sëñ Moustapha Mbacke nag mi nga xam ne sëñ Mbacke Sonloo moo ko fi teg ci 2001 waxoon na ne lam bëgg lam bëgg fii ci dëkkam bii nay de yéen amoon na ci yéene waaye sunu borom xëy na da ko matalut moo tax mu yëkkati ko jox ko rakkam ci baax ji sëñ Moustapha Mbacke ngir mu nekkal ko fii te lépp loo xam si yéen woon na ko mu mottali ko te fi mu doon mën nañu wax ne kon sëñ Moustapha mu ngi ci yoon bu baax bi. macha allah ndax lim fi lima lim sànq léegi moom ne moom la fi def nga xam si ne ak dogu ak liggéey rekk moo ko waral ñu ko ci gërëm bu baax da ko ci sant te ñaan suñu borom yokk ko ba macha allah la Cheikh Moustapha mbëbatoon ca Taïf daande Taïf dinaa ko def ni ndar ñu ñaan sëñ Moustapha Mbacke mi ne de mu def ko lu raw sax ndar ndax jàpp nañ ne mën na ko te Serigne Touba moom dafa amuti tànki ginnaaw tànki kanam rek la am képp koo xam ne si ne taxaw nga ci tànk yooyee fas ceewee moom Serigne Touba moom moo lay boppam ndax la mu waxoon si Moustapha ne ko bis bu ngeen mooy yóbbee Touba de lu ngeen nasate lu ngeen tàmbali ko àggale nga xam ne kon mën nañoo xam ne kon loolu mooy wéy ba léegi kon képp koo xam ne taxaw nga ci yoonu Serigne Touba fas koo yéene liggéey rek. Sëñ Tuubaa moom mooy la wolul boppam ba lépp loo xam si ne tàmbale ko moom moo ko eggalee boppam ba nga tàmbalool yeneen ba mu eggale la ko ba mu eggalal ko incha ñu ñaan sa koy ñaan nag ya mu yàgg fi te ànd ak lépp loo xam si ne daal mag ñu baax yéene woon ne ko ci dëkk bi mu àggale ko ba tàmbalewaat ay yeneen yeneen ba àggale yooyee bàkki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul nga xam ne kon fii ci Naydé Mbacke comme ni ma leen ko waxee sànq Cheikh Moustapha mi ngi ko sanc ci 1922 nekkoon fi euh, daan fi liggéey daan fi bayee ba bi nga xam si ne nekkoon nag sëñ bu ku tedd gi ci njaareem nga xam ne lu jiitu njaareem sax ndax euh, Cheikh Moustapha mën nañoo mooy taaw sëñ Touba Xaadimu Rasuul noppi. mi ngi gane àdduna ci Daaru Salaam ci euh, at mi 1887 wala bokk 1888 ndax dafa am ay jiixi jaax yu ci nekk ndax ñëpp nangu na ne Cheikh Moustapha at mi mu gane àdduna at moom la sëñ Touba sëñ ci Touba waaye nag xëy na dafa am ay wuute ci am te loolu sax yoon na maanaam ndax taarix moo demee noonu ñenn ñi dañ ne 1887 ñenn ñi ne te Cheikh Moustapha mi ngi gane àdduna tamit weer ba sëñ Touba sañce woon Touba muy weer wii ñu nekk di weeru Muharram weer wi ci la sëñ Touba sañce woon Touba ci la Cheikh Moustapha gane àdduna bis ba mu ca gane àdduna tamit am na ci ay jiixi jaax yu ci am tamit ndax ñenn ñi dañ ne ñetteel fan ci weeru tamxarit la gane àdduna nga xam ne moom ak sëñ Abdou Khadir ñoo koy bokk ñenn ñi tamit ne déedéet moom mi Cheikh Moustapha mi gën a àdduna ci guddi Ashura muy bu guddi fukkeelu fan ba tombe woon na guddi àjjuma euh, nga xam ne kon mën nañoo wax ne tamit loolu histoire moo demee noonu rek waaye kon Cheikh Moustapha jàpp nañ nekkoon kon mi gën a àdduna ci weeru Muharram mu yor Tamxarit bi ñu nekk ci def ko ci guddi àjjuma ca Daaru Salaam. mu nekkoon ak Cheikh Moustapha wéjuram soxna Aminta Lo euh, bokkoon ci loo ndaam nga xam ne ku leen xam xam leen ci alxuraan xam leen ci diine xam leen ci sunna xam leen ci lépp loo xam si ne ne nit ku baax dana ko def ñu xam leen ca nga soxna Aminta Lo mais moom mais mooy wéjuru Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xam ne kon Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mën nañoo bokk wéjur ko jigéen bi suñu borom defee la gën ci soxna soosee ndax Sëriñ Tuubaa dafa mosoon toog benn bis moom ak soxna Aminata ak soxna Awa Buso muy waajur Sëriñ Fàllu ne leen kat sunu bakkan yi ñetti bakkan yi suñu borom soxla na ci benn bi mu waxee loolu bi ñu toogee ab diir soxna Aminata Lo daal di xamal Sëriñ Tuubaa ne ko euh, yow de xel xalaatut sa bakkan di dem léegi ma bëggoon ma ñaan nag ginnaaw yàlla def na ne yéene samay sang ma bëggoon ngeen bàyyi ma ma demal leen nga xam ne kon mën nañu wax nekkoon kon euh, soxna Aminta Lo moo njëkk a joxe bakkanam ci yoonu murit ni Sumaya jox njëkkee joxe bakkanam ci yoonu lislaam noonu soxna Aminta Lo njëkkee joxe bakkanam ci yoonu murit muy loo xam si xëy na ñu bàyyi xamuñu ko waaye waaye ku xamul des koy xamal ndax yoon bi dafa am dafa am taarix dafa am cosaan cos cosaan loolee jot na nag ñu dekkel ko loola wax kon suñ teewaay fii Cheikh Moustapha nga xam ne moom ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mën nañu nañoo ne kon soxna aw bu soo muy wajju sëñ Fallou moo leen yar ñoom ñaar bi Cheikh Moustapha dem bi suñ tubaa dem ci géej gi ci Mbàkke Baare ci 1895 dafa jëloon loxoom teg ko ci boppu Cheikh Mouhamadou Moustapha loxo ndeyjo bu góor loxo ndeyjooram teg ko ci boppu Cheikh Moustapha joxool jël teg teg loxo euh, euh, càmmoñam ci boppu Cheikh Mouhamadou Fadal ne leen dénk naa leen yàlla ak yonente bi daal di dem nga xam ne kon bis boobee di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi di liggéey nga xam ne kon mooy bis bi ñuy waajal fii kii euh, fan yu néew incha allah. cheikh moustapha nga xam ne mom ak ñeen njabootu sain tuba mën nañu wax chelo ci mam maam ni biram lañ nekkoon ndax sain tuba moo leen tàmbalee jangal leen bi mu demee ci mam gi no yor leen ak da daam abdourahman lo ñoom ñoo yoron yoroon ci jang njàng nga xam ne cheikh moustapha ne bi fi sëñ tuba nekkee ba sëñ tuba ñibbisee mu nekk di liggéey ba nga xam seen manam dañ ko daan sax jaawale ak talibi serigne touba yi ndax ndax donc nangu gim nangoon ba noppi jaxasug taalibe yi nga xam ne bopp bi sax daf ko daan bàyyi noonu sax nga xam ne daa ko toppatoo sax nga boo ko mësaan gis da ngay yaakaar ne sax kii ci taalibe yi la bokk nga xam ne daa ko gis mbokk ba xam ne kii ci njaawu Sëriñ Tuubaa la bokk na muy taawam mu nekk ak Sëriñ Tuubaa nekk ak moom ba ni mu sañcee ay dëkk comme ni ma ko waxee sànq nay dem Mbàkke mi ngi ko sañc ci 1922 euh, Tindóo di mi ngi ko sañc ci 1914 Taïf mi ngi ko sañ ci 1939 xam na ginnaaw sëñ bi la ak yeneen dëkk yu bari Daaru Salaam Darma ak yeneen yi ak ku ci mel ne Thiong ku ci mel ne Nibo ji ak feneen ak feneen ak feneen yooyu yëpp nag ngir di liggéey sëñ Touba ba lépp loo xam si ne ñore na fu mu def ko addi mu def ko addi ñëw yët ko sëñ bi ci loolu la nekkoon ba ni fi Serigne Touba jóge nga xam ne comme li ma yàgg di wax toujours rek. Sëriñ bi ba fiy jógee euh, xëy na musta wax ne wala laataa mu fi jóge musta wax ne na ma di wuutu ndax lii dalu yonent bi salaahu salaam moo ko dal yonent bi salaahu salaam musta wax ne na ma Ababacar wuutu wala na ma Alioune wuutu wala kenn wutu Sëriñ Tuubaa tamit noonu waaye teewul nag wala fi dañ naan junj doy na borom xel ndax Sëriñ Tuubaa Euh, dafa sampalum boppam Cheikh Moustapha bokk na ci man li ko màndargaal muy dafa amoon benn bis boo xam ne Cheikh Moustapha benn taalibe bu mag ci yoon bi dafa yëkkatoon addiya ab oto jox ko sëñ Touba sëñ Touba jëlaat oto boobee yónnee ko Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha jëlaat oto bi teg ci ay yeneen addiya ñëw yitaat ko sëñ bi joxaat ko addiya sëñ Touba daane ah lii de boo ko defutoon ne sama yaakaar tas ci moom ba benn bis Sëriñ Tuubaa dafa jëloon benn satala desoon ko ci ab bunt mu toog benn tiir mu woo Cheikh Moustapha ne ko Moustapha dama yéen ma satala gële Cheikh Moustapha dem yëkkate satala gi bunt bi topp ko mu jëlaat satala gi tegaat ko ci desaat ko ci bunt bi wut benn bant bu dëgër bi mu jëlee bant mi ñëw teg ko ci bunt bi ba mu leen bunt bi euh, euh, du du ubbiku mu jël sa tegal sox ko it sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daan ko ni euh, waa ba nga ba demee noo ko fekkoon sëñ Modou Moussa daan na ko ni ah, dama yëkkati satala gi buntu bi topp ma ma jëlaat satala gi jël benn bant bu dëgër wéer ko ca bu ko defee bunt bi du mën a ubbeeku sëñ Tuubaa daan na ko est-ce que Moussa lépp lu lu waay di jëlee fenn. bala nga ko faa jëlee da ngay xaar ba la ko wut ba lëkk ko fa wutu dëgër la ko fa mën a wutu dëgër nga koy soog a jël nga xam ne kon mi ngi ko doon caxti mu ngi dem am na ci loo xam si ne xëy na moo gën a fës ci nga xam si ne maanaam ci màndaga yi wane ne Cheikh Moustapha Sëñ Tuubaa moo ko sampaloon boppam Sëñ Tuubaa dama soon taxaw ne Moustapha bis boo amee ñeent fukkaat kenn dootuma amati kilifa bis boo amee ñeent fukkaat kenn dootuma mën a yilifati loolu la ko sëñ Tuubaa waxoon bi loolu amee biñ demee ci weer wi ñu nekk muy weeru muxaram boobu Cheikh Moustapha mi ngi toog kayal bi mu toogee kayal ba ci yàgg doon waxtaan ak nit ñi di saafonte nit ñi boobu suma juumalee ñu ngi nekkoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, tamxarit Cheikh Moustapha toog ba ci yàgg di waxtaan ak mbooloo mi di waxtaane taalibe yi ca kayal mu toog jékki-jékki waxatul bi mu jógee daal di fi doon doxantu foofu ci benn tokkooru ñam bi bu nekkoon foofu góor gu baax gu ñuy wax sëñ Mor Lo sëñ Mor Diop njàndam sëñ Mor mooy woy euh, sox maam soxna Lo Diop maam soxna loo Diop di waajuru sëñ Mbàkke soxna Lo bi ko sëñ Mor fekkee foofee Euh, Cheikh Moustapha daana ni ah man de moor dama am jaaxle ci li may nettali génn googu ñu wax sëñ Ibrahima Fall Madior moo ko nettali ndax fekke woon na jotaay woowee bi mu ko waxee ne ko mu ne moor dama am jaax am jaaxle sëñ moor daana ko ni ah moo sëñ bi loo war jaaxal ah, man de daf euh, sëñ Tuubaa dafa am lu ma waxoon ndax ma waxoon ne ma bis bu ma amee ñeent fukki at dootuma mën a amati kilifa mu loolu jaaxal na ma lool bi loolu amee fa la jógee ci kayal googe la jóge ñëw fii ci Touba ci karti bu ñu naan sura bi mu jógee Touba la dem ci dëkk bi ñu naan eh, ci dëkk bi ñu naan Tindóo nga xam ne moom ko sancaloon boppam ci 1914 bi mu jógee Tindóo ci la ñëw fii ci Naydé bi mu jógee neere nag ca la dem ci dëkk bu ñu naan Kellal Kellal Diop dëkk maam Amadou Mokhouédia Diop maam Amadou mooy wéjur soxna Fatma soxna Fatma mooy mooy wéjuru sëñ Cheikh Mbacke ak soxna Xadi soxna Xadi Fatma bi loolu bi mu fekkee euh, sëñ euh, Amadou Mokhouédia nga xam ne fekk ko fa sax dafa fekk mu dem tool mu laaj ko ñu ne ko ma Amadou dafa dem tool ñu ne ko ndax ñu woowee ko. moo leen déedéet motta woote mu daal jël ab bataaxal bind ko daal koy joxe ne nen denem yëtu ko na xam mën naa ma ñu jaaraat fi fan yi fa la ko julli tisbaar fekk bi mu julli noppi nag ca la jaare noonu dem xam ne ci tënk rek xam naa loolu day xaw a gudd bi mu jigee foofee ca Kellal la dem Daaru Muxti daje fa ku ñu wax suñu Ablaye Diop lew na bi mu jógee Daaru Muxti la dem la dem ci dëkk buñ naan ñaaxeen bi mu dee ñaaxeen fanaan na fa ñaari guddi jóge ñaaxeen ci la demee fii ci gaawaan ci fekk maam maam Anta bi mu waxtaan na mu saafante na mu ba noppi xamal ko ne ko du mën a yendu ci la ko maam Cheikh Anta yëkkatee jox ko benn ba akub saakub cere ne ko negam boo yendu woon ma ganal la ko daane ko añ baa ngi noonu bi mu jógee gaawaan ci la soog a dem njaarim fekk fi sëñ Touba mi ngi fa agsi ci bisu fukki fan ak juróom-ñeent ci weer tamxarit muy weer wii ñu nekk bisu fukki fan ak juróom-ñeent mi ngi fa fekk mi ngi fa agsi diggante tisbaar ak san bi mu agsee ci kër gi waxtaan fekk googu ñuy wax moo xam sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana fekk ko fa waxtaan ak moom sëñ Cheikh Moustapha laaj ko sëñ bi Euh, sëñ xam Mouhamadou Diop Dagana daana ko ne ah sëñ bi de mat naa nemmeeku ndax fan yëpp dañu xamu ci moom dara ci loo gëj na ko def bi loolu amee Cheikh Moustapha dugg ci biir cib tënk rek euh, laajte kees gi fi nga xam ne moom la fi ñu mujjee gis sëñ Touba kees googeeg googuñ naan euh, Cheikh Fatakou ala Cheikh Fatakou Diop moo ko yoroon bokkuñ ci magi kër mu agsee ci néeg bi nga xam ne moom la sëñ nekkoon ci néeg boobee dañ ne wax nañ ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko moo ko defaraloon mu ànd ak sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci fekk sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana euh, sëñ Tuubaa daf ko waxoon ne ko euh, euh, Moodu may naa la fu ma nekk nga mën ma nga faa agsi bi sëñ Mouhamadou mu Diop Dagana agsee nuyoo kenn fayu ko bi mu nuyuwaatee kenn fayu ko mu xam ne lii ginnaaw Cheikh Moustapha mi ngi fi te mooy taam ji moo ci gën a yee mu ne ko bismillah Cheikh Moustapha nuyoo kenn woyu kenn fayu ko ci la bunt bi xaw na dëgër tuuti ci la ko bësi bi mu ko desee fekk sëñ tubaa ci sëñ ku tedd gi ci melakaan woowee nga xam si ne duy teggin sax ñu koy nettali bi xamee ne bi ñu xamee ne suñu boom def na la ko soob ci la sëñ yabale sëñ Balla Coro mu dem gouverneur euh, ci lañ ko defalee certificat d'essai ci dañuy tënk rek biñ bi loolu amee sëñ Touba xamal Cheikh Moustapha xamal gouverneur ne ko sëñ Touba dafa bëgg bëgg-bëggam mooy bis bu fi jógee ñu yóbbu ko ci këram gi ci Touba. gouverneur daa ne ko loolu mën naa nekk waaye dama ko dama bëggoon a euh, waxtaan ci sama kilifa ba noppi Cheikh Moustapha ne ko waaye loolu mën naa ne waaye nag loolu xam naa duma ko mën a xaar ndax ku ma yóbbu ko nga xam ne bi ñu fee départ boobu timis maase woon na guddi woon na. sëñ bi ñu ngi ko yebal ci benn oto màkk dalaay boo xam sëñ Balla Cooro moo ko moomoon euh, sëñ Cheikh Moustapha bi ñu koy duggal ci oto bi bi muy duggal oto bi ci sëñ Tuubaa ci oto bi mu yebal sëñ Basiiru ak sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moomee ak naar bu ñuy wax Mouhamadou Tandaxi ak euh, ñeneen kilifa ñooñ lañ fa yebalu ñu dem ànd ak sëñ Touba indi ko fii ci Touba nga xam ne Cheikh mu ñëwutoon Touba dafa desoon njaarim li waral bu desoon njaareem nag dafa bëggoon maanaam bu sëñ bi demee mu lijjanti ginnaawam ngi mën a lijjanti ginnaaw moo tax mu desoon njaareem nga xam ne sëñ Tuubaa mi ngi fi agsi guddi guddik Ashura mu la fi agsi muy guddik ñaar fukki fan ci weeru mu xaram la agsi la euh, ngi biñ ko waajalee nga xam ne sëñ euh, Cheikh Moustapha yabal na fu nekk ci dëkk yi ngir mag ñi fi nekkoon maam Thierno Birahim Eh, cheikh mohamadou fada cheikh mohamadou mbar ak ñeneen ak ñeneen ngir ñu ak seigne mbàkki busog ñeneen ak ñeneen ngir ñu fekk eh, manam euh wattaay seigne bi waajtaay gi ñu doon waaj gi ñu doon waajale nga xamne biñ koy denc biñ koy denc boobu ñu naa sax naan eh, beut setoon nga xam mooy bisu ñaaf fi fani ci bëccëg gi ci lañ ko ci suba tel gi ci lañ ko wajale daf ko jëbul ko borom bi lol amé ñun li ci des li ci desoon nag mooy xanaa mooy kan mooy wuutu sëñ bi ca comme ni ma ko waxee sànq rek dañoo waxtu bi moo ñu xaw a tënk moo tax euh, moo tax dañ koy xaw a tënk noonu tuuti rek bi famille bi maanaam njaboot gi dajaloowee ci njaareem euh, maam Thierno Birahim Mbacke nga xam ne moo jiite woon euh, moo jiite woon jotaay ba ànd ceeg Cheikh Ibra ak yeneen mag yi yoon bi. ci la maam Thierno Ibrahim gëstoo sëñ Fallou sëñ Bassirou daan na leen a ah, ñun ne fexe nañ ba suñ mag gën kon yéen fexe nañ ba seen mag leen daal di wax Cheikh Moustapha ne ko fi too ni yaay kilifa gi te àdduna jootu xëccoo lenn lépp loo war am rek dina la fekk fii nga toog daal di wax euh, sëñ Mandoumbe Mbacke daan na ko ni la la sëñ Touba daan loo wéy ca ndax danga nga ci am ngërëma su ndax da nga ci am ngërëmam lam la daan defloo fii ci ñaareem muy liggéey ba mu ko daan sant wéy ci di ko def ndi incha allah di nga ci am ngërëm mu daan ne gees Cheikh Ibra daal di wax Cheikh Ibra Fall daan na ko ni ah yow lu la waneloo mu ne ko xanaa aw yoon mu ne ko waneel yoon wi Cheikh Ibra Fall daal di jëblu boppam sëñ Moustapha nga xam ne kon ci jotaay boobu ci la Cheikh Moustapha ci gàttal ci la nekkee xalifam sëñ Touba nga xam ne nekkoon na ko ci baatin ba noppi ndax Cheikh sëñ Touba tànnaloon na ko boppam ba noppi waaye nag ci zaahir si bis boobee la ko la ko nekkee la nekkee xalifam sëñ Touba jiite yoon wi yëpp mu amoon liggéey yoo xam ne sëñ Touba santoon na ko ku ci mel ne jumaa yi tubaa ndax daf ko waxoon ne ko bis bu mu fi jege nag ma yóbbu tubaa te bu xaddam daan ne ko sama jumaa jee nanga ko taxaw te sa e, njaboot gi ma fi bàyyi tamit bugguma kenn ci koo xam si ne maanaam ëllëg di wax naan bu fi sëñ tubaa nekkoon dinaa am nangam nga xam ne kon ndénkaan yooyu ko sëñ tubaa ndénkoo dénkoon Cheikh Moustapha fas ko ci bindoon ko ci ab këyit def ko ci e, wenn maxtu e, nga xam ne maxtu nga xam ne loolu moo ci sànnu maxtu nga xam ne maxtu tey ji ñu bari dañuy dañ koy dañ ci def seen i téere wala di ci def seen xasaat yu mel noonu waaye mu Moustapha moom maxtu ba mu yoroon moom nga xam ne moom moo moo cosaanu maxtu moom kii ak kii la ci foon defoon ci kii boobee mooy lëkk sëñ Touba santoon mu def ko ci nga xam ne waxtu wu nekk day nekk ci moom te nga xam ne xelam du ci génn. loolu la ko waraloon loolu la waraloon maxtu bi nga xam ne euh, sëñ sëñ Maodo Moustapha ginnaaw bi mu indee sëñ Touba ci biir Touba. fas ne maanaam li nga xam ne moom la ko sëñ Touba santoon yu bari ku ci mel ne jumaay Touba ji ca dumaay jumaay Touba ci jamono yooyu nga xam si ne ñu ngi woon ñu ngi ju ñu ngi jige ci guerre mooy première guerre mondial wax ci doole ci 1929 ñàkk gi metti woon lool muy crise économique des années 30 ak yeneen yenn yu bari yoo xam si ne mën nañoo xam ne ay balaa la daanaka mën na ko may su ko méngale ak balaa. yu bari yoo xam ne mi moo nekkoon ci àdduna bi lëmbeloon lëmbewoon àdduna bi lool nga xam ne si sëñ Maodo Moustapha ci jamono yooyee ci la yooyu xilaaf sëñ Tuubaa gi mu metti lool ci jamono yooyee mu war a taxawal jumaa yi taxawal jumaa ji bi mu ci waxtaanee tubaab bi euh, nga xam ne ci la amee autorisation fekk ne lu jiitu lool sax sëñ Maodo Tuubaa ci 1926 ñaanoo amoon na autorisation waaye ginnaaw ginnaaw bi tubaab bi def ci ay yëf ba yëf yi mujjul antu nga xam ne Cheikh Moustapha bi mu nekk xalifab sëñ Touba nag ci la maanaam euh, ci la maanaam autorisation boobee mu doon ñaan euh, ci la ko ci la ko fàttaliwaat tubaab bi tubaab bi nag xam nga comme moom mii mi ngi xeex ak ba léegi daan na autorisation bi nañ ko may xañ ko ko nuñ ko koy mayee mooy mën nañ ko bind ci kayit xamal ko ne ko am nga autorisation maanaam am nga ci ndigal waaye niñ ko koy xañee mooy nañ ko teg ay méthodes yoo xam ne si ne bis bu ci sóoboo dina xam dina xam ne lii mënta nekk mbaat foo jaare bàyyi ko ci liñ ko njëkk bokk na ci liñ liñ ko njëkk a wax mooy euh, Touba suuf soo soosee maanaam fi nga xam si fi la war jumaa ji nekk dafa war a nekk suuf si yaatu soo xam ne yow yaa ko war a jëndal yow yaa war a jënd ci sa xaalis bopp ci la Cheikh Moustapha jëndee quatre cent ectares quatre cent hectares yooyee mooy titre foncier Touba nga xam ne tey jii li naan tubaa mooy statut statut spécial am ak wala titre foncier yooyu ci loolu mooy cosaan li Cheikh Moustapha moo ko jëndoon ci ci ci année ci année ci année trente année vingt neuf trente ci la ko jëndee woon nga xam ne loolu mooy cosaanub titre foncier Touba ñu leeral ko ndax ñu bari ñu ngi naan eh, ci nguur diw lañ ko amee wala yooyu déedéet. jamono Cheikh Moustapha ci la ci la Touba amee woon titre foncier muy 400 hectares yoo xam ne Cheikh Moustapha moo ko jëndaloon boppam def ko ci tur yoonu Mouride bi loolu amee ñu ne ko nag raay bi nag ndax Touba boobu jamono dafa nekkoon dëkk bu àll boo xam si ne amutoon benn yoon bu fa jëm te nagam ab raay moo nekkoon ab saxaar moom la nit ñi daan faral di tukkee te boobu jamono Touba ab àll la woon dëkk bu àll la woon boo xam si tubaa bi amuñu woon intérêt def fi ndax dëkk yu mag yi ku ci mel ne Dakar ku ci mel ne cees Kaolack ak Ndar ak yeneen yooyu ñoo daan am raay ndax yu ay dëkk yu mag lañ te commerce bi macha allah doxoon na fa moo tax kon amuñu intérêt euh, def euh, def raay Touba ndax boobu Touba ab dëkk àll boo xam si ne la fa nekk mëttu fukki kër ñu ne ko ni raay boobee nag yow yaa koy liggéey yow yaa koy liggéeyal sa bopp yaa ci def sa xaalis bopp liggéey ko te ouvrier yi ci nekk yaa leen di fayal yaa leen di jël. fay leen te yaa leen dundal tamit te bépp loo xam si ne maanaam ci biñ jamono bi ñuy liggéey am na ay yàqu-yàqu ci am yow yow yow mii eh, yow la ñuy wax ne yaay responsable bi Cheikh Moustapha ne la nangu naa loolu nga xam ne raay bi kon ñu ngi ko commencé ci la 1928 28 le 11 juin 1928 nga xam ne bi ñu koy liggéey boobee maam Cheikh Ibrahima Fall ci boppam ne joxoon na lu mat

14 février 1931 ci la raay bi agsee Touba bi raay bi agsee Touba ci 1932 nag ci lañ soobu jumaa jumaa ji liggéeyu jumaa ji nga xam ne le 4 mars lañ ko tàmbalee woon le 4 mars tamit ba ren am na ay jiixi jaaxa ndax ñeen ñi dañ ne le 4 mars ci lañ gasee fond ci lañ fondement bi am ñu ne déedéet le 4 mars ci lañ tegee xewu njëkk bi wala ci mën di xew daal ci weer mars boobu lañ ko lañ tàmbalee jumaa ji 1932 Cheikh Moustapha nekk ci euh, di ko liggéey euh, def ci euh, lépp lu mu mën nga xam si ne nga xam ne jumaa ji ndeysaan moo nekkul itam yépp nga xam ne bi mu fiy jógee ci 1945 fekkoon na boobu jumaa ji yëkkate woon na ko ba ko waaye jotoon am solo jotoon am nga xam ne ko yëkkate woon rek kuule ko noonu nga xam ne Cheikh Moustapha noonu la ko bàyyi noonu la fi bàyyi woon jumaa ji ak yeneen liggéey yoo xam si ne sóobu woon na ko ak bis boo nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moom lañuy ñu dëgmal ca mu amoon ci ndigal muy assuré na mu xaram di guddi gu mag goo xam ne lim làmboon ci xewal yaakaar naa jullit bu ko xam waxuma murit bu ko xam sax waaye jullit bu ko xam ba ci doomu aadama bu ko xam yaakaar naa foo mënti nekk dina la jaaral nga jóge fa nga jóge ñëw fanaan si ci guddi googee ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne guddi googee malaayka yi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ahlu badan ak malaayka yi dañuy fanaan si Tuubaa képp koo xam si ne fanaan si fanaan si nga Tuubaa ci guddi googee danga nga si du ci ji bàkkaar nga juddoo woon loolu mooy guddi guddi échec la moo xam am na ay jaawal yu ci bari yu ci am nag ndax yéega saay dañ naan la mooy guddi gi sëñ Tuubaa wàcc ci liggéey ba loolu waa am ñu naan sax bis bi bisum naqar la kenn nga ko woote waaye déedéet nekkul bis bi sëñ Tuubaa wàccib liggéey xëy na sax bis bi sëñ Tuubaa wàccib liggéey ci zaahir ndax gëm na ni sëñ Tuubaa du koy dem bis bi mu fi jógee ci zaahir mi ngi nekk bisu fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weer tamxarit guddik euh, échelon moo xam mooy euh, fukki fan juróom ci guddi yi maanaam ci guddi ñaar fukki fan bi ci la njëkkaat fan si Touba guddi googu nag la Cheikh Moustapha woote te mu amoon ci ndigal sëñ Touba nag ndax. Sëriñ Tuubaa bi bindoon ab bataaxal bataaxal boo xam ne da ko bind ba noppi e, boobu sëñ Massamba mi ngi teew moo ko seede wan ko sëñ Massamba ba sëñ Massamba xool ko e, bi mu ko joxaatee sëñ bi sëñ bi daa koy jox Cheikh Moustapha nekk ko téye ko bisam bu agsee nga génn ko bi sëñ Tuubaa jógee ci 1927 ñu dem ba 1936 jàpp 1937 Cheikh Moustapha toog ba ci yàgg daal di laajte daan ne ana ana sëñ ba ñu ne ko sëñ Massamba dafa tukki ñu ne mu daan ne leen dem leen seetule ma ko biñ ko dee wér ba fekk ne boobu sëñ Massamba mi ngi tollook Louga ñu ne ko kaay wu Cheikh Moustapha seen sëñ Massamba bàyyi tukkeem ba ñëw fekk Cheikh Moustapha nga xam ne bi mu agsi ci guddi gi booba boobu guddi woon na nga xam ne daan fekk na ñëpp tëdd waaye Cheikh sëñ ba ci euh, warmaal gi mu warmaaloon Cheikh Moustapha moo taxoon nangu tuux na faane këram te wuy gisu Cheikh Moustapha te negam Cheikh Moustapha duggoon na ci biir ba noppi mu nekkoon dee toog ci penc mi xaa ko ba ba ngoy gis bi bi mi fanaanee ci guddi ga ba bët set bi Cheikh Moustapha yéegee na sëñ Massamba ñëw na mu wooloo ko bi nga ko ñu wooloo yëkkati bataaxal boobee ko sëñ Tuubaa bindoon joxal ko Cheikh sëñ bu xool ko xàmmee ko daa koy def ci dënnam mooy li ma wax sànq naan guddi googee sëriñ Touba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahlu badrin ak malaaka dañ fanaan si Touba képp ko fanaan si Touba da nga setu ca bakkan nga juddoo woon mooy guddi mooy solos guddi émission na moo xam mooy guddi gi sëriñ Touba njëkk a fanaan si Touba kon bis bi loolu moo ko sabab loolu mooy sabab bis bi loolu mooy mbootu bis bi nekkul bisum naqar ndax sëñ Mourou Moussa daana wax sax naan buñ ko mosaan di wax naan ko bis bisum naqar la laan déedéet xaadu ci sëñ bi kon bisub faj aajo bis bi nga xam ne maanaam ndax sëñ Tuubaa danaan moo waxoon ci Mawaahibul Xuddus ne yow yàlla suñu borom defal ma cent bis bis bi gën a rëcc cent bis yi mooy bis bi nga bi may dajew nga di ma fay ci mooy bisub Ashura Muharram mooy bis bi mu dajeeg boromam suñu borom di ko fay. nga xam ne kon moo bis bi ñu dëgmal muy bisu safar 18 safar gi boobu sëñ Tuubaa dafa jóge woon di tukki di di dem doon dem liggéeyi séntu am pay nga xam ne fay bi jotagu ci waaye mi ngi koy séentu mu ne woon nekkoon nañ ma sant les sant borom ci lim ma ci defal nga xam ne jotagul am pay waaye te mi ngi ci sant suñu borom guddi échec moo xam nag mooy bis bi guddi bis bi nga xam ne maanaam ci liggéey matee ñu wax koo fay kon mooy mooy ñaay bis yooyee nga xam ne ñaay bis yi loolu moo leen uteele ñaay bis yëpp bis yu baaxal bis sell la ndax bisu Sëñ Tuubaa bis yëpp am bis yëpp am baax waaye guddi gi ñu la mooy guddi échec moo xam. ni ko sëñ Tuubaa waxoon ne defal ma cent bis yi bis bi gën a rëcc cent bis yi mooy bis bi may dajaw nga di ma fay mooy bis boobee échec na Muharram ni ci euh, ndokkeel ñëpp di ci ziar ñëpp di ñaan ñu fekk ko ay ati nag incha allah nga xam ne kon Cheikh Moustapha cib tënk liggéey bu mat sëkk la liggéeyoon sëñ Tuubaa ak taxawu njabootam gi ndax bi fi sëñ mag bi jógee euh, nga xam ne bu weesoo moom moom sëñ Fàllu ak sëñ Baar sëñ Basiiru mën nañu wax ne ñoo ci nekkoon ay mag xanaa sëñ Abdou Bam bi xëy na moom ndax mi ngi toll ci ñaar fukki waaye ñu des ñëpp mën nañoo xam ne ay ndaw lañ woon ñoom ñëpp Cheikh Moustapha moo leen teg ci wetam yar leen jàngal leen toppatoo leen ba kenn ku nekk bi nga demee ba dëgër mu samp la fenn waxtaan wax nañ sax ne sëñ Saliou ci boppam këram gii ci mbuur Cheikh Moustapha moo ko yëkkoon jox ko àddiya samp ko fa daal di xamal waatunu woowu yépp ne leen bis na ko tey bu kenn jéggeeti kookee di ñëw ci man loo am yemale ko fa ndax noonu meloon ci njabootu sëñ Touba yi noonu la meloon tamit ci seex sëñ Touba yi ak ak ñi njabootu sëñ Touba ñi nga xam ne moom la bokk na ma wax de sali ku ci mel ne maam Thierno Birahim ndax am na ci bis boo xam ne sax benn taale bi dafa jóge woon boori ci njàmbur gi romb romb daa moxti ñëw ci Cheikh Moustapha ci Touba di ko siyaare Cheikh laaj ko daan ne ko fan nga jóge mu nekk bërëb sàngam mu ne ko ndax romb nga suñu bàyyi Thierno mu ne ko romb naa ko ndax ziar nga ko mu ne ko déet mu nekkoon léegi addi ji nga ma jox dëppal dem ba ca moom nga ziare ko joxe ko te boo ñëw nga ñu indi neen nga xam ne kon Cheikh Moustapha kon foofu la tolloon xam daa ci gàttal daal Sëñ Tuubaa taxawaay gam mu taxawoon moom da ko taxaw taxaw gu mat sëkk taxaw gu mat sëkk goo xam bu mucc ayib goo xam si ne maam ci gàttal liñ naan Cheikh Moustapha dafa samp ñeneen ñu ko fi wu ñeneen ñi fi wuutu sëñ Touba ñëpp tàmbale ba ci sëñ Fallou ba ci Cheikh Mouhamadou ñoom ñëpp kenn ku ci daanaka ci tànk si Moustapha nga wéyee waaw ñu ci sant ñëpp di ci gërëm ñi nga xam ne loolu ci gàttal daal loolu mooy ci tënk loolu mooy liggéey Cheikh Moustapha yaatu nag yaatu na lool sax nga xam ne bu ñu fi doon toog di lim lépp boo moytu sax fi la ñuy waxtu suba fi la ñuy fekkaat xam na kon ci moo tax ñu bëggoon euh, euh, leeral lool rek lu muy lu tuuti rek. bàkkeeloo ko te xam ne tamit ne euh, nit ku du ju amut ndax ñun ay ndaw lañ dañoo toll ci jàng xëy na suñu borom ñu koy sant bu baax nag moo ñu xëyee ci mag ñu baax ñi di leen roy mag ci mag ñu baax ñi di leen roy ñun tamit ñu fas yéene topp ci seen tànk xam naa du yomb nag waaye ñu gëstu ci seen i mbir di leen xam euh, di leen jàng xëy na am na ci loo xam si ne buñ ko waxee xëy na mën na nekk lu jub waaye am na ci loo xam si ne xëy na nga téef la euh, ñu ci jégalu bu baax nag xam nañu dañoo toll ci jàng rek dañuy jàng waaw ñu ci sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali ne màggal Échoueur moo xam gii di ñëw incha allah euh, alxamis bii di ñëw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ci ut bii ñu nekk muy bis boo xam si ne ci la Serigne Touba ñibbisee Touba. bis boobee nag euh, ginnaaw bi fi Cheikh Moustapha jógee nag ci 1945 Cheikh Mouhamadou Fadal joxu ndigal sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma taawam ba euh, euh, daane daal di xamal ne moom mago safar gi lay woote loolu mi ngi xew ci 1948 wala 47 daane màggu safar gi lay woote waaye ma ichor mu moom séddee na ko Cheikh sëñ Cheikh Mbacke ak waa te loolu maa ngi déggee ci Cheikh Mouhamadou Min Bara mi nga xam ne moo fi nekk lu sëñ Touba. ci moom ci moom laa ko déggee ndax fekke woon na jamono yooyee sëñ Cheikh Mbacke nekk ko di ko woote ba bi mu fi jógee 78 sëñ si Mbacke Madina nekk ci 78 ba 85 sëñ Dan 1985 86 sëriñ Aliou Mbacke 80 1986 ba 1998 sëriñ Khadim Mbacke 1998 ba 2004 2005 euh, ak léegi nag macha allah sëñ Ahmadou Mokhtar. ñu ñaana ko mu yàgg fi lool te ànd ak moom moo ko jiite euh, sëñ Muntaxa fekk si ko ci macha ñoom ñaar ñu bokk ñu ci sant bu baax a baax a baax a baax di ci am xel mu rafet di ñaan ñu fekk ko yaat yaat yaat sëñ Ahmad yàgg koo woote ñun ñi ñu yàgg koo euh, yàgg nekk ci ganam yàgg euh, yàgg ko fekkee ci lépp loo xam si ne suñu borom. Euh, digle digle na ko ci ñu def ko ci lépp loo xam si ni suñu borom bañ na ko ñu bàyyi ko euh, yaakaar ci ngërëm sëñ Tuubaa kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa